ginnaaw ba ñu génnee ci li nga xamante ni muy finaalu coupe d'Afrique des nations te ñu ko doon amalee foofee ca Cameroun Sénégal nag daanul ñi nga xamante ni ñooy waa Égypte waaye nag loolu ba mu jeexee Sénégal ak Égypte dinañ dajawaat ci lu tollook benn weer rek ndaxte li nga xamante ni mooy mois de mars rek lay amee loolu di lan muy li nga xamante ni mooy barrage bu coupe du monde 2022 ñuy amalee foofee ca Qatar nga xamante ni sunu gaynde yi dinañ ci jogante ñoom ak waa Égypte match aller ba sax ñu jël datu euh, le 25 mars rek def ko foofee ca euh, stade bu Caire bu 19h jotee li nga xamante ni euh, mooy euh, match retour bi rek mu doon ñaari équipe yooyu yëpp nañ jóge foofee ca Égypte ngir dalal seen bopp foofee ci Sénégal wala sax fii ci Sénégal ngir mën a def li nga xamante ni mooy jogante match retour bi le 29 mars rek lay amee mu doon double confrontation Sénégal nag jamono ji mën nañoo wax ni am na benn renfort de taille boo xamante ni da ko ñàkkoon ci li nga xamante xamante ni euh, mooy euh, Coupe d'Afrique des Nations muy wuyu si turu euh, Krépin Diatta moom mi nga xamante ni dafa absenté woon si li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique des Nations boobu li ko waral nag nekkul dara lu dul ab blessure mooy rupture de ligament croisé antérieur du genou gauche rek la amee woon moom milieu terrain offensif boobee rek jamono ji ma leen di wax mu ngi commencé waat li nga xamante ni mooy entraînement am foofee ca bitim réew moom bi nga xamante ni dañ fa war a jouer ak gaynde Euh, wàllu euh, qualification euh, coupe du monde 2022 jamono ji may waxal ki nga xamante ni mooy Krépin Diatta mën nañoo wax nii dina bokk si li nga xamante ni mooy euh, match aller bu euh, Égypte ñuy amalee fii ak fan rek maanaam le euh, vingt cinq rek lay amee moom nag dina bokk si li nga xamante ni mooy match retour bi waaye sax dañuy nemmeeku li nga xamante ni mooy physique bi ak li nga xamante ni mooy compétition bi est-ce que dina nekk si tànk bi mu doon bonne nouvelle boo xamante ni nouvelle bu neex a neex la si kii di Aliou Cissé ak képp koo xamante ni ay doomu Gaynde Njaay nga waaw muy di Krépin Diatta bokkoon na si zone yoo xamante ni titulaire la si euh, équipe nationale bu Sénégal moom nag mu ngi am lu euh, vingt 22 ans rek ñaar fukki at ak ñaar rek la am moom bi nga xamante ni football na fii ci Sénégal si benn club bu ñu naan Oslo euh, FA mu doon fii si nekk fii si Dakar jamono ji nag mu ngi am 24 match ak ñi nga xamante ni ñuy sunu gaynde yi mu dugal si ñaari bii ak ñaari passe décisive